يكن عزيز ذب دري لدن منان يباسر الشيطان والإنس والجنان أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه آه، رب استرح لي صدري ويسر لي أمري وأرنا قلة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu jëleen leen ndokkeel ci weeru safar di ñaan yàlla suñu boroom subhaanahu wa taala mu dolli ñu tawféex eh, dolli leen ko mbokk yi del siwaat nañu yéen seen jotaay safar 2020 yéen ceen ak seen mbokkum Moustapha Mbacke di ñaan suñu boroom subhaanahu wa taala mu sàmmañ suñu kilifa diine yi wéral leen àggali seeni mébét di ñaan Cheikh Amadou Mountakha yàlla yàggal ko fi liggéey bi mu tàmbali yàlla na ko mottali ba tàmbali yeneen naan yàlla ko yàlla ko defal na ko yàlla defal jàmm nangul ko jaamu yàlla di wéral ko di nuyu kilifa kër gi di Cheikh Mamadou Mansour Diagne ñu ngi koy ziare lu bari di sant mbokk yi ñu déglu auditeurs et auditrices yëpp euh, fii ci Darmanko FM Darmanko TV euh, di ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa lépp luñ fi waxtaane yàlla ko def ay njëriñ tasaare ko ci ummu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa di sant soxna Fatou Kiné Samb mi nga xam ne moo nekk ci technique bi euh, ba euh, ñu mën ko jàllale euh, di santit Cheikh Mohamed Fadal muy sëñ Fallou Gumbale mi nga xam ne moo nekk ci wàllu réalisation bi ba pare tasaare ko ba mën ko séddale boo ku ne jot ci yaa yàlla fay leen fay ñu Eh, mbokk yi ñu ñëw gaat yéen ci su ñaareelu tomb ci Sëriñ Tuubaa ak alquran ci la ñu nekkoon di tomb am solo ndax eh, liggéeyal na yàlla ci alquran bañ li yàlla di sédde ci alquran maanaam maanaam ni nit di def ba jot ci dara loolu lépp mu lew ko yàlla joxe na ko noonu may na ko alquran sarax na ko alquran addiyal na ko alquran mbooleem loo xam ne daal boo bëggee jox nit loola lew ko nga jaare ko ca anamin woo anam ma wele Cheikhul Khadim noonee la ko yàlla joxe alquran lu tax ngir liggéey bu rëy boo xam ne def na ko ci ci coono yoo xam ne daj na ko ndax ba muy bëggee jóg woote wootam bi wajur wa jóge fa ba moranta sali rahmatullahi alayhi wa radiya anhu bu taxaw war koo mën a jàppale protocole yi ku nekk war a dox say pexe ngir buur bi mën a jàppale sëriñ bi nga jàpp ne mbiri sëriñ bi mën a baax say mbir baaxaale ndax buur mu am doole mu am njël lu doy mu am kaaraange noonu lañ ko jàppe bañ ko waxee nag ñoom protocole yi pour mu jaxasoo ak buur mën a am salaire mën a am njël lu baax ngir mëna jaamu yàlla daf leena tontu ne len fa xul ba xasbi rabbi waktafaytu bihi wala suraadiya xayral ilmi watiin allahu akbar yàlla doy na ma doyloo naa ko ah dama doy ma doyloo ko te lu dul diine ak xam-xam Sëriñ Tuubaa ne du sama yitt kon شاول خديم رضي الله تعالى عنه القران رك لمن جلكون آه، موي كيدم آه، ديكو امات غير ممن اغ فمو جم كو سخلاو دي في ادنا سخلاو يا في بور كون يالا دستي تو يالا لو بوك مو جخلا دانكو جاري سي تيريم بك بيان دابا صلى الله عليه وسلم سيرين توبا فلا نكون waxon na ne man sama diine mooy lislaam lu ma waay jàpp ne ca laa nekk it man loola gërëmuma ko diine Seydina Muhammad sallallahu ji di diine suñu boroom moom mooy sama diine moom laa gërëm te moom laa ñëw yeesal siwaat ñëw ma fi ngir commerce ñëw ma fi ngir yaatal am mbooloo ñëw ma fi ngir sama tarix a gën a kawe waaye damaa ñëw ngir yeesal diine Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam jooju diinum siwaa islaamihi laa yuhmadu عند الإلهي وبه te mënoo yeesal diine Seydina wa sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi te jëloo matuwaay mooy yi nga xam ne moom nga ko mën a yeesalee te li ci jiitu mooy kitaabullah subhanahu wa taala di alquranul karim mbokk yi ñuy déglu Cheikhul Xadim radiallahu taala anhu dal li xamal ñu ne bama amé tawfiq ci lañ ma won nem alquran ak hadith yenente bi moy li bax bam amé tawfiq amee ci lañ ko xamal ne ko alquran ak hadith yenen bi sallallahu alayhi wasallam moy li bax leneen li ci dess yeb amul njariñ ظهر لي أن اعتذاما بالكتاب وبحديث المصطفى هو الثواب yàlla mama ma feeñalal wan manema jàpp moy ci téré bi di alquraanul karim ak ci hadith yenent bi sallallahu alayhi wasallam huwa thawab moy li bax moo tax gisatul lenn lu dul lenn sëñ Tuubaa rabbil aalamiin gisatu ko ba tax mu wax ne bi xidmati alkitaabi wal xadiisi yasbutu laa bi dahabin mawruusi nee ku ma bëgg a doon ñu naan kii moo fi wutu sëñ Touba kii moo doon sëñ Touba kii mooy Serigne Touba nee na faw nga jël alxuraan ak xadis liggéey ci liggéey alquran ak xadis nee ci lañ may doon ku ca nekk rek jàppal ne yaa nga ci sama waar wax ah Cheikhul Xadim radiyallahu dafa sonn ci alquran te fonk ko jaayante naa ak yàlla ci jël téeréem bi liggéeyal ci yenn bi sallallahu alayhi wa sallam salaamu alayhi ba suñu boroom may ko ci ndam lu rëy lii nga xam ne moom la ko ci may bokki alquranul karim nag mooy téere di attewukaay di dustuur di git di sukkandukaayu bépp jullit niti yàlla yi moom alquran moo nekkoon seen référence moo nekkoon seen source bi gën a mag moo nekkoon seeni balluwaay lépp lu jëm ci wàllu seen ak dund ak lu jëm seen wàllu alaaxira alquran lañ doon sikkandiku ndax suñu boroom moo wàcc alquran mu nekk loo xam ne njub la yërmande mbégte ak gid la lu ñëw ngir leeral mbooleem julli julli bu bëgg yërmande bëgg mbégte bëgg njub bëgg lu leer nañ sa digg sa boroom ak sa àddina mu leer ci yow mbokk yi suñu boroom alxuraan la wàcce mu nekk sa alal ngir nga mën a am leer ak njub ak mbégte ak faramfàcc tibyaanan li kulli shay'in wa hudan wa rahma wa bushra lil muslimin allahu akbar inna hada alqur'ana yahdi lilati mooy yoon wi ngay sóobu jëm ci yàlla boor bi subhaanahu wa taala yoon wi gën a jub gën a baax ngir nga àgg ci yàlla alquran la kon faw ñu ko mbokk ci alquran alxuraan ku ci sukkandiku dangay ngay dangay da ngay réer moo tax fawwis ñu jàngal ko suñ njaboot gi mbokk yi ñu déglu Cheikhul Xadim radiallahu taala anhu nii mag ña sonne woon ci alquran saxaaba yi nañ ca sonne woon saalihuun al muqarrabuuna jël ko muy seen ak dund seen tubaab bi ñëwee cër boobu rekk moom la jël yokk ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neen ahlul quraani hum ahlullahi wa xaasatu ñooñ alquraan ñooy njabootug yàlla kuy wër njabootug yàlla demal seet ñi jàng alquraan ak ka jàngale ak ña cee liggéey ak ka defar kitaabullahi subhaanahu wa tax booy wër ñooñ yàlla di wër ku féetub yàlla di wër suñu borom subhanahu wa taala da nga da yi da nga ñëw sukk ci kanam cheikhul xadim radiallahu anhu ndax li yàlla bëgg lépp def na ko lim aay woon yépp mu bàyyi ko ni ko yonent bëgg woon mu defe ko na jëm ci yàlla boroomam subhanahu wa dal ne man de alquran man cheikhul xadim mooy sama koom mooy sama tedd nga mooy sama daraja moom lay puukare woo ca la ma yàlla ca laa ame ca suñu borom subhanahu wa nekk saa te dëqe allahu akbar kowel nekk fa nag am fa lu kenn amul ba yàlla wóolu ko mu nekk dëgg laa kon bu mag ba nekk boroom daraja yu mag bi nekk ka nga xam ne lu yàlla bëgg bëgg na ko lu mu bëgg suñu borom bëgg na ko lu mu bëgg suñu borom bëgg ko nee na loolu ci alxuraan laa ko amee qiraatuha kanzi wa jaahi wa izzati uniltu biha kawni ladallahi saa sadaqin tey sa yàlla yàlla fayal ñu ko mbokk yi ñu déglu ci Darmanko TV Darmanko FM wax nañ ne boo léegi yowmal qiyaamatul akbar bu ñu jël suñuy jëf di wane ku nekk di seet la nga am Serigne Touba nee na man li ma am dafa rëy ñaar lay génn teg walla ñett yàlla ak yeneen bi alxuraan laay nëbb ñoom laay teg moom laa am ndeysaan ñu puukarewoo kenn ku rek li nga def ak li nga am <laughs> mu mu mu mu tee yàlla ak mu mu mu mu teg fële yàlla ak yonentam ak alxuraanu karim daal di koy ne bàcc teg. tabaatu rabbi والرسول والكتاب مستغنيا عن الحساب الثور takat xisaab moom li ma suñu boroom fay moo ma ci musal ba duma ca jaar ah mbokk yi bu ñu laaj jëf nga teg yàlla ak ab yeneen ak alxuraan karim te mbokk yi Cheikhul Xadim dafa am yàlla boroomam am yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom alxuraan alxuraan radiyallahu ta'ala mu ne ci liggéey alxuraan ak xadis nee na ci lañ may doon ne ku ma bëgg a doon ku bëgg nekk ci li ma nekkoon bëgg maa doon la ma nekkoon nga wéyale ko mu leer na yow mii ci lii sëñ tubaa nekkoon ci nga nekk loolu ngay mottali sëñ tubaa nee na demal nga liggéeyal alquran ak xadis xidmatil quran wal hadith yathbutu laa bi dahabin mawrusi bokk ay waajuram ci soir ku ne xamoon na Mamour Anta Sali daaraam ju mag ja ku ne daan ñëw di jàng si ak sari di fa jàng sharia macha allah macha allah daara ju am solo ku ne xamoon na it maamam ja waajur maam soxna jaratullahi soxna maam soxna aswaalo mbàkke jàngalekat bu mag baax jàngalekat bu mag ba daaraam ju mag ba waajuram ba jàngalekat bu mag ba kon Sëriñ Tuubaa daa doon alquran doon alquran ñëw yàlla jox ko alquran ci maamam ci néeg ndeyam ci néeg baayam ak li mu fàggul boppam eh, suñu borom subhaanahu eh, dimbale ko it mu nekk ci ba am ci ngërëmal yàlla mu woo taalibe yi di leen defar seen ak ruux wala leen leen ngir mu defar leen yar leen àgg leen ci yàlla faw mu jaare leen ci alquran moo taxoon muy wax ne bépp murid bu aju ci man nay sax ci jàng alquran karim kullu muridin bi yaluus fal yudim tilaawatan li gayri dikrin qadus mbokk ñu teg foofu suñu baaraam danañ jël sax incha allah ci eh, jotaay boobule di ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix di sant soxna Faat ki dem nekkoon ci technique bi Serigne Fallou di xëy ma ko réalisé Moustapha Mbacke Diouf ngeen ci àndaloon Daal Manqué FM di sant way déglukat yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh دعني لسر الله قلبي لن